ginnaaw bu ñu sante yàlla julli ci sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam tàllal suñuy loxo ñun ñu doyee di ñii ci kanam suñu borom ngir ñaan ko lii nga xam ne moo nekk ci àdduna si te sonal ñëpp te kenn ku ne am ci jaaxle te moom rek moo ci man dara mu dindil ndu ko fii ci àdduna si ba mu jeex tàkk loolu mën na ko saj na ko te am na kàttanam yàlla nañu ko defal ginnaaw loolu itam ñuy tàllalaat suñu loxo di ñaan suñu borom mi nga xam ne mooy borom kattan te mooy borom mam te mooy borom sañ sañ-sañ Cheikh Mouhamadou Mountakha bi nga xam ne moo fi nekkal Serigne Touba te li xam nañ ne itteem du dara lu dul doomu aadama yi ak lislaam yàlla ko suñu borom gën a dëgëral gën koo kattanal ba li nga xam ne moom la yéene ci doomu aadama yi yéene ko ci lislaam mu def ko ci defenu kawe njortam te ànd ca ca ànd ko moom te jaji ci ngërëmu suñu borom ginnaaw loolu itam ñuy ñaanal képp koo xam ne lislaam mooy sab tool la suñ yàlla na suñu borom gën a dëgëral gën laa taxawal ba li nga xam ne yéene nga koo defal lislaam nga def ko ci defin yu kawe sa njot te daje ci ngërëm suñ borom te ànd te ànd koog ñi ngi ko war a àndal ginnaaw loolu nag ñu xam ne ñu ngi nekkoon ci ajuma yi weesu yëpp di waxtaan ci li nga xam ne moom la ñu suñ borom boole te boole gi nu boole itam ba mu nu boolee dafa waxtu wu ne day indi ay yoo xam ne day gën a dëgëral boole ga njëkk njëkkoon a waxtaan ci boole gi nga xam ne bi mu nu boole ñu nekk ay jullit mu mu defal nu loo xam ne moo nuy fàttali ne ñun ñi am na luñ bokk ñu wax ñu misaaloon ko ci julli juróom misaal ko ci julli korite ak tabaski misaal ko itam ci aj ginnaaw boobu itam ñu wax ne bi nga xamee ne yëg la yëg na ne yéen de am ngeen lu ngeen bokk te bokk lañu la defal defalu nañ leneen waaye bokk la ñu defal bokk nag xam nañ ne koo bokkal ku nekk te la nga bokk ak moom bëggoo ko koo bàyyee danga seet noo ànd ak moom ci àndin wu rafet loola moo tax lislaam ak bokkoo la def defut leneen ak bokkoo nag mooy am ngeen loo xam ne yéen a ko bokk te li ngeen bokk itam kenn ku ko bëgg a bàyyee moroomam amu ci loola nag tax na loolu la la ci la lislaam taxawee mooy ak bokkoo looloo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam doon wax ne bu fekkoon ni jàpp ab xarit day ma wax ne kon Aboubacar mooy sama xarit waaye nag ak ak ab xarit dafa amul ci lislaam li am ci lislaam mooy ak bokkoo looloo tax itam bi mu demee ba Madina la mu def mooy dafa bokkale ña nga xam ne ñoo nekkoon dëkke woon Màkke ak ñi nga xam ne ñoo dëkke Madina loolu nag kon moo nuy wan it wan yitam ne lislaam bi nga xamee ne def na ba kaw googu nga xam ne moom lañu ñu boole ñun jullit ñëpp mu daal di indi nag yoo xam ne moo nuy xiirtal ci luy tax ba ñu mën a sos famille boo xam ne day tegu ci fi mu war a tege jaar ci lim fi mu war a jaar loola itam ni mu ko defee mooy dañu dañoo defal sos ab famille mu doon loo xam ne lépp njariñ lay luy dellu si waat ci ki nga xam ne moo ko sos ndax benn rek ci misaal niñ ko waxee woon ci ajuma ji weesu sa doom ji nga xam ne moom nga am te yàlla dogal mu teel fee jóge buñ ko dee ñaanal buñ ko dee jullee li ñuy wax di yàlla na ko yàlla def ci sa ci saw yiw kon loola kon mi ngi lay xiirtal ci nga góor góorgóorlu ci tax am taxawal ab famille yi ginnaaw loolu itam mu doon loo xam ne wax na la ne soo amee doom joo xam ne yar nga ko ci ni mu war a jaar ni mu war a jaar ba mu jaar fi mu war a jaar boo fi jógee itam day mel ni sa àdduna sa jif du dog ba mukk kon loolu itam day la lay gën a xiirtal ci nga war a taxawal ab famille ginnaaw loolu itam bi nga xamee ne taxawal na jullit ñi wax leen liñ bokk di leen fàttali loolee ñu bokk ci waxtu bu nekk delloo si waat dellu si waat na itam fexe ba lépp loo xam ne mooy war a andi ak ak jaxasoo wala muy indi ak juwoo ci biir jullit gi jullit gi mu fex wala mu tere mu tere ko ci terrain wu tar looloo tax ñu gis ne mu ta mu tere jëw tere rambaaj tere iñaan ak yépp yoo xam ne doon na luy war a mën a indi ak ak ñàkk a déggoo ci biir jullit gi ginnaaw loolu bi nga xamee ne def na ko itam fexe na ba li nga xam ne mooy jullit ñi nañ nañ waxtu wu nekk nañu yëg ne am na loo xam ne ñoo ko bokk yëg-yëg boobu nag na nekk ci seen xol na nekk seenu nañ koy dund nañ koy doxe yëg-yëg boobu itam lim lim indi indi na ko ci andiin woo xam ne dana tax ba ñun waxtu nekk ñu yëg yëg yëg boobu yëg-yëg boobu te di ko dund ndax yonent bi sallallahu alayhi wa dafa wax ne képp koo xam ne wax nga ne ab jullit nga te liy xew ci jullit ñi ak li ci ak li ci liy xew ci jullit ñi ak li la fay am sa yoon nekku ca kon noonu na nga xam ne boo waxee ne ab jullit nga itam jullit nga wérul delluwaat di wax itam ne jullit ñi day ñi ngi mel ni buñ leen doon misaal dañu ci ni nga xam ne ni nañ yërmant yërmant yërëmantee ak ni nga xam ne ni nañ bëgg bëggantee dafay mel ni benn jëmm ak cër ya ca nekk xam nañ ne cër bu ne ci jëmm ji benn ca benn cër bu dara dal rek beneen yeneen cër yi dañ koy yëg kon loolu ba tey bëgg na dugg dundal ci suñu xool wala bëgg naa def ci jullit ñi ñu yëg ñu am yëg-yëgub ne ñoom ñi ñoo bokk benn yëg-yëg ñoo bokk ñoo war a bokk benn taxawaay ñoo war a bokk ab jëmukaay loolu lépp kon doon na yoo xam ne lislaam da koo da koo taxawal ngir bëgg rek li nga xam ne mooy jullit ñi ñu bokk benn yëg-yëg xam ne ñoom ay jullit lañu xam ne lu dal kee kee man la dal lu dal kële itam man la dal kële itam ne li dal li dal kii man la dal la dal kële itam man la dal noonu lañ ko war a dunde loolu moo tax ba yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ba tey dellusiwaat di ngir bëgg rek ñuy yëgu waxtu wu nekk ne ñun dey ñoo am na loo xam ne ñoo ko bokk te loolee ñu bokk itam kenn du ko bàyyee sa moroom kon nag war nañ koy yëg di ko dund loola moo tax ba yonent bi sallallahu alayhi wasallam di xam le ne képp koo xam ne ab jullit nga te lii sa it lii sa taxawaay mooy foo fekk mbokk mu muñ war a dimbali ci mbokk jullit yi nga taxaw julli dimbale ko nanga xam ne yàlla woon waxtu moom itam mi ngi taxaw sa wet waxtu wu ne dana la dimbali delluwaat itam di wax ne képp koo xam ne fekk nga jullit boo xam ne nekk nga ci nekk na ci ay jafe nga fexe ba jafe nga dindi ko ci moom na nga xam ne ëllëg fa nga xam ne fa la dëgg nekk fa nga di nekk dëgg-dëgg bu boobaa sa suñ borom naa taxaw ci sa wet moom it jaaxle googee nga xam ne moom nga nga am foofee te kenn mënu ca dara ko dul moom bu boobaa dana taxaw sa ci sa wet teggil la jaaxle googee teggil la jafe-jafe yooyee delluwaat wax itam ne képp koo xam ne doon nga ab jullit xëy na gis nga ci sa mbokku jullit loo xam ne doonul loo xam ne loo rafetlu la wala lu nit ñi rafetlu loolee nga gis te nga xam ne doonul loo rafetlu doonul loo xam ne nit ñi rafetlu nañ rafetlu nañ ko itam waroo génn ci mbedd mi di ko weer waroo génn ci mbedd yi di ko wax waaye li nga war a def mooy da ko war a suturaal ndax loolu boo ko defee bu suñ borom am loo xam ne ñëpp ya kenn xamu ko waaye te bu ko feeñaloon sa sa yaakaar naa nit ñooñu la ngay la ngay bañ ci la ngay bañ ci waajoo yooyu man nañ ko bañ ci yow la ngay bëgg ci kooke itam la nga doon bañ la nga doon bañ nit ñi lam doon bañ moom nit ñi wala lam doon bañ nit xam ko suñ borom am na lu mu la dencal loo xam ne bu ko feeñaloon sa yow itam sa la ngay la ngay la da am kars danga nga am kersa da nga am ah, da nga am ak jaaxle ci sa bopp te loolee nag. bu fekkee ne yaa ngi koy defal sa mbokkum jullit yàlla nee na moom itam bu ëllëgee nanaa la ko defal kon loolu lépp day bëgg rek nañ bokk ab yëg-yëg nañ bokk loo xam ne benn bëgg-bëgg la nañ bokk xam ne ay bokk lañu te bokk googee liñ bokk kenn du ko bàyyee sa morom koo xam ne nag la nga bokk ak sa morom doo ko ko bàyyee bu war ngaa rafet war ngaa jéem rafetal sa ànd nag moom ndax loola mooy tax la ngeen bokk ngeen mën koo bokk ci bokkinu rafet loola mooy tax itam la ngeen bokk ngeen mën koo dund ci dundinu rafet loolu mooy tax itam ñu gis ne lislaam nag bi nga xamee ne mi ngi nuy xiirtal ci ñu yég mbokk googee te ñu yëg li nga xam ne moom lañ bokk tey bokk benn yég yëg doonul loo xam ne dafa wax ne day wax ne da ngeen bokk ngir yéen a nekk ci àdduna si kese wala day wax ne góor-góor leen ci ndax da a am lu ngeen bokk waaye dalay dalay dalay da koy jaara jaarin woo xam ne faw danga am yëg-yëg bu rëy ci boo ci war a def loolee ndax kenn ku ne xam na ne mënoon naa wax rek suñ borom ci sañ-sañam mënoon naa wax ne bu ngeen am bu ngeen amee gan na ngeen ko teeral waaye ni mu ko waxee dafa doon waxin wu rëy woo xam ne ku ko dégg ku ne te xam ne ab nga te ndëgg jullit nga di dëgg ci yow da nga daal di am dana am lu mu def ci yow ndax bu waxee ne képp koo xam ne da nga gëm yàlla gëm bis penc ci boobee nga xam ne fa la ñuy daje ëllëg ngir fay kenn ku ne la mu doon def boo amee gan na ko teral mu delluwaat wax itam ne képp koo xam ne da nga gëm yàlla gëm bis penc ci boobee nga xam ne danañ fa daje boo dee deeg sa dëkkandoo na nga dox na nga doxee nag moom ci doxin wu rafet bu ko lor mukk loolu lépp waxin la woo xam ne ngir bëgg a yee suñuy yëg-yëg ngir bëgg yee itam suñuy pas-pas loolu moo tax mu waxe ko noonu kon ñu gis ne lépp loo xam ne yàlla dañu koy digal suñ diggante ci suñuy diggante ñun li ci ëpp dañuy fàttaliwaale pas-pas bi nga xam ne moom lañu bokk dañuy fàttaliwaate ëll dañuy fàttaliwaale ëllëg gi nga xam ne dañ bokk taxaw ci kanam suñu borom mu àtte nu ci li nga xam ne moom lañ doon def ci àdduna si lépp kon loolu dañuy wan ne lislaam moom li nga ni nga xam ne ni lay digalee digal yépp day doon loo xam ne day laal sa pas day day yëngal dafa war a yëngal sa pas dafa doon loo xam ne dafa war a yëngal sa yëg-yëg loolu mooy tax loolee boo koy def doo ci xool ma sàmba doo ci xool ma demba doo ci bàyyi xel ma sàmba doo ci bàyyi xel ma demba waaye suñu borom nga ci bàyyi xel ak pas-pas bi nga xam ne moom ngay dund tam nekk ci yow kon loolu moo doon loo xam ne lu am solo la loo xam ne man nañ war nañ koy bàyyi xel ci xam ne li nga xam ne moom lañ bokk ak ak niñ ko war a doxalee lépp suñ borom bu nu koy bu nu koy bu nu koy digal dañu koy digal ci fàttali li nga xam ne mooy li fas ci suñuy xol te loolee moo doon loo xam ne dañ ko war a dund ci suñu cër war koo feeñal ci suñuy jëf loolu kon yàlla na suñu borom mi nga xam ne moo nu boole li ñu mu nu boole te bëgg ñu ànd ko ci àndin wi li mu bëgg ñu àndee ko ko tam doon loo xam ne itam loolee suñu njëriñu adduna doon suñu njëriñu alaxira lay doon bu ëllëgee moom moomee nga xam ne nag moo nu boole loolu jox nu matukaay yii tax ñu mën koo sàmm mu mën koo doxee yàlla nañu dimbaleel suñu bopp ba matukaay yooye ñu di ko jàpp niñ ko war a jàppee di ko doxee niñ ko war a doxee ndax loolu mooy tax suñu julli rafet loolu mooy tax itam li nekk ci ñun ñu man koo dox ci doxin wu rafet loolu yàlla suñ borom loolu moom moom mu nga xam ne moom moo def loolu lépp te nga xam ne moo am sañ-sañu mën nu cee dëgëral moo am sañ-sañu mën nu caa saxal yàlla nañu ca saxal ci sañ-sañam ba yàlla nañu ci dëgëral ci ci ci kattanam ga ba li nga xam ne moom la bëgg ci ñun ñu jaare foofe ba lii nga xam ne moom moom la ñuy dël dël bu ëllëgee ñu mën a dajeek moom ci dajin dajinu gën a bu kawe suñ jot ci dajin wu rafet loolu suñ borom mën na ko jàpp na ko yàlla nañ ko defal allahuma la tadaa lana damban illa xafarta wala hamman illa farajta wala daydan illa xadayta wala maytan illa rahimta wala maridan illa sufayta wala xaajatan hiya lana salahun walaka ridan illa xadaytaha ya arhamar rahimin ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم